asalaamaaleykum waaw vidéo bi de du gudd de waaw vidéo bi du gudd ndax subaa jàmm danaa leen defal vidéo ca suma youtube channel ba subaa jàmm danaa leen defal vidéo ci suma youtube channel ba waaw yéen Sénégal ak Gambia fi mu ne nag feebar bi wane na seen kola yi de feebar bi wane na seen kola maa ngi nii di seetaan benn programme Sénégal si télé bi bugg si bugguma wax tur bi bugguma wax turi télé télé Sénégal bi génnee programme bi Nothing yéen ku leen fekk yéen ak Gambia ngeen di xaaye nit ñi ne buñ ñëw Afrique ngir feebar bi le wax naa ko tey ci vidéo suuse bi ma doon def ak vidéo xolof bi ma fi def barki démboo njaay nag xaw ma démb wax naa leen ne feebar bi fa tax Afrique wone seen jikko yéen xam ngeen ne ñu nekk bitim réew dañuy liggéey si feebar bi te xamuñ si pexe xamuñ choice yéen Afrika yéen a ñàkk ngor ay Afrika ay Afrika Afrika yéen li ngeen ñuy ñaan xaalis yéen Afrika yéen lu ngeen luñ xam ngeen rat ko ngeer ñu bañ set wecc yéen fi ne nii sax ngeen ne nañ leen yónnee xaalis suba jàmm danaa leen defal vidéo ci suma YouTube channel bi ñuy suuli leen yéen kenn mënta muuru ci yéen <laughs> ku muuru it dana wax la xam ne malaaka yi fukki muurum gi gis nga yéen Afrique billahi yéen Afrique yéen yéen Afrique yéen yéen Afrique li dal niin est-ce que jàmm la yéen ku leen fekk ngeen di xaaye nit ñi buñ dugg si réew mi nit ñi su ku ci feebaru sax ngeen ne buñ dugg yéen sénégalais yi càng Maroko xaw a fële nu mu tudd xaw fan ngeen nekk Mali bugg a dugg seen réew mi ngeen xaaye leen ñu nga càng sa boodo ba te ñooñu sax xamul feebaruñ dara jotu leen wax ngeen ko ci programme bi ne ñooñu gannaaw feebaruñ nañ toog saa yi ne maa ngi gis vidéo yi la ci YouTube bi le ak Téléga Sénégal channel yi le di xaaye seen doomi réew mi ak doomi Gambie yëpp di xaaye nit ñi jànq boobu noonu dugg Gambie ngeen tes ko mu xam coronavirus noon yéen ñi fa xam coronavirus toog te yëgu leen ko yéen a xëpp coronavirus du ku ne lay rey si butu bi sax a gën a mën a rey nit dan coronavirus xam naa ne gëmu leen yàlla te ngeen a ragal a dee ngir ni ngeen mel a tax ngeen ragal a dee xam ngeen la ngeen di fekkee àllaaxira waaye yéen ku leen fekk ngeen di jëf-jëfi nii di xaaye nit ñi réew mi di mere nit ñi di jëf-jëfi seen vidéo yi ngir ragal dee ak soxot yéen xam ngeen ñaata nit ko ñuul ñooy génn dem liggéey man tey tey jànq ma war na létt moo ko cancel maa ngi wax ni ma doon ko ñu bëgg a moo ko cancel ne di ñëw ngir ka coronavirus xaw ma coronavirus xaw ma waaye man ma koo neexoon mu ñëw ma létt ko su ma yónneewu ci coronavirus bi ngir soxla xaalis bi te su ma pareewoon yéen laa koy yónnee yéen ñëpp fi mu ne nii yéenay kool ni ñu ne leen ni ñu yónnee njëgi maalo njëgi diwli nag njëgi ndugg parce que yéen a ngi tëj ci seen marché yi te ñun itam suñ marché yi suñ bitig yi si bëri ndugg mi jeex na xamuñ xaalis buñ duggee sax nduggam bennaat xamuñ ko ndig butu ñu xam war koon duggee ndugam benn at moom lañ leen di yónnee far dese butu toog fi mu ne ngeen di wax ne ku feebaru tut bu mu ñëw ndax wóoru kooka mën naa feebar gis ngeen ni ngeen ñuy jàmboo fi mu ne bi ngeen feega ne ngeen a fañ feebar gis ngeen ñi ngeen ni ngeen ñuy def bi ngeen foogee ne ñun fañ feebar ak li ngeen ñuy ñaan si xaalis di ñu sëriñtu di ñu widd kenn ku ne ku xam ju june june june bitim réew sax du xam jàmm ku xam jabar june Afrique du xam jàmm ngeen di ko jaxaseeg jabar ja di ko liggéey mooy lii lum do xaaral ba ñooñu ngi wax bi ngeen réew di ci ci feebar bi di liggéey kenn ku war a liggéey ngay liggéey ci feebar bi nooy def te ku liggéey ci feebar bi boo xamee feebar boo dee it yéen <laughs> yàlla may réewaay may jooy lu waay xam ci feebar bi muy liggéey yéen lay yónnee ba yéen téeméeri nit di kool nit di ko ñaan ba pare ngeen dégg ne nit feebar nañ rek ngeen ràkkati ku ne kenn bu duggu dugg yéen nga xam ne bu nit ñi di ñëw ngeen naa indi xaale ma bàyyi kële naa indi xaale ma dàll kële naa indi xaale ma saak kële naa indi xaale ma nàngam fi ne ngeen ne nit ñi bu kenn ñëw mer bay jëf-jëf ci seen télé yi le gis ngeen ni ngeen ñu jàmboo bi ngeen foogee nañ fañ feebar Afrique te sibutu si moo gën a mën a reye feebar bii yéen feebar bi ngeen ko xamut moo tax ngeen tiit soxot moo tax ngeen tiitit foog ne ngeen di dee dem safara ngir xooluwu leen seen bopp xam ngeen seen xol bi ni mel moo tax ngeen foog ne jaxanama jaa nga tàng di leen xaar waaye dinañ leen robi wala mënu leen a daw jaxanama ja feebar bi man jarul ragal mu ngi fi ma ne nii sax waaye tey tey laa jógee supermarket man du may sol maas kon ñu suuli borom maas ba yàlla tere may sol maas nit ni docteur buñ jaale ci mbedd mi ni xaj buy matte mukk feebar bi bu la dalee it du la rey wax nañ ko ne téeméer ni sax bu leen dalee ñaar wala ñett boobu wala benn ñoo cay dee fekk ña repon ñooy dee de ña ca repon ku repp ñu robi la feebar bi onot lii lum do waaye Afrique yéen a soxota ñàkk ngor bu subaa ñu robi leen ma defal leen vidéo ci suma YouTube channel ba ñu robi leen fi ne suma xol bee tàng moo tax ma ñëw di leen mosal lii rek yéen fi ne seen programme bi laay seetaan maa ngi koy jekkale ji du ma wax ban télé la ca ca ca Sénégal du ma tudd turu télé waaye tele senegal bii di xaayee nit ñi buñ dugg ca réew ma ak yeneen vidéo yu jógee Sénégal rek ak Gambie yëpp toog leen fi mu ne toog leen yéen tamit mais eh, toog leen kat yéen a feebar toog leen di law lawi naan toog leen xanaa tey ngeen ñuy toog leen tey ngeen ñuy toog leen waaye danañ toog man de xaw ma njëgi ticket sax du ma mën a ñëw su ma amoon njëgi ticket yi du ma mën fi mu ne nii rek bu ma fa jógee yàggut su ma doom yi xaw ma njëgi ticket daal ma ma taree ñëw fi mu ne ok su ma amoon njëgi ticket te tëjuñ boda bi mais ñëw buñ leen di robe it ma ñëw yéen lii lum da nit ñi ko feebaru sax ngeen ne bu mu dikk xóorut mën naa feebar de yéen yéen li feebar bi ngeen xamee moo raw korona yéen seen seen président yi duñ leen jox dox docteur yu baax duñ leen jox hôpital duñ leen jox garab nit ñi di gàngsa nit ñi di réeb nit ñi di rey nit ñi di xoj gune yi di réeb di xoj ni ñi ñëpp di réeb ak a jàmpaaka guddee ba ca suba ngoon tiitu leen si lool jogu leen takkaayu ci loolu ngeen fi fi fi ne fi leen péeral di waj waji ñuy wax ngeen den ngeen direeku naa yéen a ngay ragal coronavirus waaye yéen robin nañ leen walla ne nii ngeen ñuy def ñu ñu ne bitim réew ngeen di ñu jàmbu di jëf-jëfi ne ne mukk buñ ñëw jël leen réew ma ñu robbi leen bu coronavirus bi passé ku ma ci kool ni xale la may ñaan ñu robbi ko good night